asalaamaaleykum ami cher fidèles internautes maa ngi di nuyu bu baax di leen ziar di am mbégte janow yéen ci seen chaîne leader bi lee di Equivox TV Euh, tey nag euh, ñu seet koo xamante ni kenn dootu ko présenté euh, Sénégal muy le journaliste Charles fay bu TFM tey nag moom lañu ñu seet si fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni rek moom mooy actualité politique bi ak réew mi sans détour balaa ñoo gën a xuus dañ koy daal di nuyu ziar ko bàyyi ko mu nuyoog ñuy seetaan à travers Equivox Charles maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar bàyyi la nga nuyoog ñuy seetaan. waaw jërëjëf Bintou Rasoul maa ngi lay fay bu baax vraiment souhaiter la bienvenue di nuyoo aussi ñoo xamante ni ñoom ñooy seetaan Equivox euh, parce que tey. mu ngi noonu dañuy ñëw rek ak li nga xamante ni moom mooy actualité réew mi rawatina li nga xamante ni rek moom mooy euh, politique bi jamono ji euh, c'est un tendu diggante li nga xamante ni rek moom mooy opposition bi ku ci mel ni Ousmane Sonko ak ki nga xamante ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy parti au pouvoir. ñu dooree ki nga xamante ni moom mooy euh, euh, Sonko ginnaaw bi ñu jotee ci information que ni rek dafa reprendre grève de la euh, faim bi nga xamante ni defoon na ko ba wàllu wérgu yaramam xaw a doy waax selon les informations yi nga xam ne jot nañ ko et que aussi ki nga xamante ni moom mooy maître Ciré Clédor lii di avocat tamit daal di koy xamle ci température bu bu bu jéggi dayoo ci ay mbir yoo xamante ni daal doy na waax ci état de santé bu Ousmane Sonko. tey su ma la waxee grève de la fin bu Ousmane Sonko bi ban jàngat nga ci am est-ce que aussi tamit c'est le moment ndax gis nañ euh, ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy avocat mi ñu ngi remuer ciel et terre pour Ousmane Sonko doon candidat ci li nga xamante ni rek moom mooy euh, élection présidentielle yi moom mu préféré euh, maanaam def grève de la faim est-ce que combat yi bokk na. Ah, dafa am plusieurs combats dafa am combat boo xamante ne judiciaire la si wàllu. justice donc avocat Sonko yi ñoom ñu ngi siy liggéey euh, ñoom seen yoon la ñoom combat boobu la ñu mën a liggéey sur le plan judiciaire maanaam nit ñi lu ñu teg ñoom ñu teggi ko wala ñu attaqué loo xamante ne ils estiment que du yoon donc ñoom ils sont dans leur logique ce qui n'empêche pas à Ousmane Sonko euh, mu am moom tam xeexam mu am xeexam boo xamante ne moom impact politique lay am ci kaw champ social ga ba pare di di wax non seulement ak sénégalais yi mais di waxaale tam ak waa bitim réew parce que la communication de de de Sonko tey bu fekkente ne grève de la faim c'est une communication maintenant mun na am ay conséquence Euh, dommageable pour sa propre santé à lui mais kooku moom moo ko décidel boppam léegi est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon dafa am loo xamante ne dañ koy respecter dans son choix à lui que c'est le moment de mois des élections ñii ñu ngi xeex pour moom mun a bokkaat moom moo tey bu demee ba gagné li nga xamante ni moom mooy euh, bataille juridique bi euh, teg seen candidat moom euh, maanaam wér gu yaramam ma mu nekk candidat aussi tam. loolu sénégalais yi ñoo koy apprécier est-ce que bu doon Sonko il devait être candidat couché même sur le lit est-ce que les sénégalais l'éliraient donc ce sont les sénégalais qui vont l'apprécier moom il a pris une option. mooy que fu mu ne nii justice du point de vue de la justice avocat am ñu ngi def liggéey boo xamante ne pour jéem que rétablir afin que mu mun a bokk ci présidentielle bi moom mu am beneen yoon boo xamante ne jël na ko pour que ñu mun a wax toujours ci moom donc dañuy wax d'un côté ñu wax justice bi beneen côté ñu wax ci moom donc dafa doubler communication donc il est présent sur plusieurs volets ba pare nag lu muy def nii sa s'adresse à quoi sa s'adresse à ce qu'on appelle l'affect parce que sa question dafa am intérêt euh, sur deux aspects yoo xamante ne Sonko lu muy def nii mu ngi wax ak xolu sénégalais yi mu ngi wax ak xelu sénégalais yi xelu sénégalais yi mooy est-ce que mun na continuer di def grève de la faim ba pare am taxawaay bu koy may mu dem si kanam loolu c'est une question boo xamante ne au niveau de la raison mun nañ ko kii mais tam xol yi mun na am ñu dem ba ñoom ñu commencé di xoolee affaire bi autrement donc c'est deux des des postures différentes mais il a fait un choix euh, toog di est-ce que son choix n'est pas bon n'est pas truc euh, kooku moom euh, je pense que Sonko a mûrement réfléchi à ce qu'il fait en connaissant les conséquences mais moom lu muy ut pour moom moo am solo mm. wàllu communi communication moom lu muy ut si moom moo am solo jaral na ko nag yenn yi moom noonu la ko moom noonu la ko jëlee donc parfois il y a des choses qu'on veut atteindre dans la vie ça vaut dafa am prix moom xëy na noonu la ko gisee. prix ba ci sa prix dund la là on est dans des jugements de valeur. Moi, je ne fais pas dans les jugements de valeur parce que je n'ai pas de leçons à donner et je déteste qu'on d'ailleurs. Dans la vie, on apprend. Yoon boobu la jël. nga nga nga bëgg ko nga bañ ko nga respecté ko nga bañ ko respecté da ngay analyser maintenant nag dans les jugements est-ce que lu mu def jullite na est-ce que lu def jullitewul kooku je pense que ñu ngi dugg si yeneen gamme yoo xamante ne moi je m'interdis ces choses-là parce que ku si nekk si ñun bu ñu doon xool lu dañuy def tous les jours jullite catholico je ne sais pas tout ce que l'on veut ñu ko def Donc, analysons du point de vue politique, il y a une double communication, une communication judiciaire, ça occupe l'espace. La preuve tey voilà quelqu'un boo xamante ne ñu ngi ne du bokk moom rek la ñuy wax ñuy wax keneen ki koo xamante ne il a trouvé le moyen de faire parler de lui à travers une tournée économique muy muy muy kii Amadou Ba ana ñeneen yi donc il a ils ont occupé ñoom ñaar par des activités qu'ils ont pu mettre en place ou par des yoo xamante ni moom nu teg si kaw xam nga euh, stratégie yu ñu teg si kaw ñoom ñaar rek ngay dégg ils ont réussi de ce point de vue là communication euh, wàllu communication réussir nañ ko déggoo ñuy wax ke nañ ko dul ñoom ñaar doy na waar 254 candidats dégg na ñoom ñaar rek ngay dégg. de la communication moo tax Ousmane Sonko opté li nga xam ne mooy grève de la faim selon vous. non j'ai pas dit que c'est une façon de faire en communication ça nous parle. parce que il a opté pour ça mais c'est une communication c'est un maanaam c'est un moom yoon boobu la jël pour mun a infléchir mais si biir infléchir maanaam inflexion yoo xamante ne da kay indi si état dafay wax ak sénégalais yi sénégalais yi am na ñu ko gisee la preuve yaa ngi fi di si wax maa ngi fi ñu fiy wax léegi nag ña ñam am na ñoo xamante ne émotion lañ koy dawal ñeneen yóbbu ko si xalaat mais il ne s'adresse pas qu'aux sénégalais il y une communauté aussi internationale tey bu ñuy wax par exemple si wàllu information si luy jëm si Sénégal booy wax politique faaw nga wax que l'opposant Ousmane Sonko en grève de faim di nga ne vingtième jour dixième jour onzième jour c'est ça donc il aura atteint un objectif en termes de communication. arrêté woon na ko reprendre at ko mais li nga xamante ni loolu la wax lu tax mu reprendre ko moom mooy les détenus politiques yi nga xamante ni dañ leen teg loxo et que seen membre de famille kenn ci ñoom mënu leen euh, teg bët loolu tax mu mu plongé waat ci. maintenant les raisons il les il les raisons c'est lui qui les donne n'est-ce pas elles peuvent être ces raisons-là comme mën na nekk yeneen raison il n'empêche que Ousmane Sonko dont on dit que du bokk wala ñu bëri ne du bokk wala affaire coow bi bëri na ba nga xamante ne on parle de lui et kooku en communication <laughs> autant bien sur le plan juridique que sur le plan politique <laughs> je suis désolé moom moom ak Amadou Ba rek ngay dégg oui. opposition bi nag ñu ci bëri ñu ngi naan euh, lépp loo xamante ni dal na ko rek responsable euh, état la parce que nit bu nekkee ci ci wàllam ci wàllum détention dem ba wér gu yaramam matewu ko dañ ko war a bàyyi mu ñibbi këram est-ce que tey jotul Ousmane Sonko ñu libéré ko mu dem ñibbi këram. loo xam nga loo tax ma ne réew bi léegi dañ toll si jamono boo xamante ne euh, damay far fii wala ma farfale ma wax en fonction de situation post posture bu ma occupé. dañu occuper ay posture opposition am na lu muy gisee waa pouvoir am na lu ñuy gisee dañu war a libéré fii ku nekk da ngay wax si loo foog ne moo gën si yow donc tey bu dee da ngay politique da ngay am lu ngay xalaat lan ngay xalaat mooy que Sonko bu bokkul te mel ni politique ma am possibilité bokk si ñoo xamante ne moom lay conseil constitutionnel di téye pour ñu dem si présidentiel ga mais électorat wu Sonko lu may def dama koy jéem a donc c'est le cas où Ousmane Sonko n'est pas là donc faw ma am lu ma wax pour ñooñu mais c'est politique c'est un gain c'est des gains politiques c'est des calculs non non c'est-à-dire politique politique situation bu ngay analyser la xool lu ngay def pour am ay plus léegi parce que dafa am lu ñuy ut mooy lu pouvoir la du pouvoir dafa am lu ma warul bàyyi est-ce que léegi loolu si biir yooyu est-ce que éthique a ngi foofu est-ce que morale a ngi foofu est-ce que dëgg a ngi foofu loolu leneen la ñuy wax du dëgg mais tey buñ ko analyser Sénégal fu mu toll ni tey réew bi fu mu toll nii tey bu fekkante ne ñun sénégalais lii tiitaluñu bu fekkante ni nous sénégalais nu some fiers de ce qui est arrivé te ku si nekk am nga responsabilité si lu fi xew c'est pas vrai c'est pas boo nee état tout seulement responsable damay ne état am na responsabilité mais du moom rek j'ai toujours di que la politique c'est du MMA politique MMA la dama ne toujours boxe boxeur booy booy boo nekkee boxeur boo yégee xam nga boo yégee siring dañ koy wax la art amul coup de coude amul coup de genou amul coup de pied judo ay chute la amul dóor loxo karaté ay yu demee boo ñëwee MMA dañ lay dóor nga wàcc si suuf koo kooku fekk la si suuf dóor la mooy rek léegi nag yow bu fekkee ne yow nag boxeur nga bëgg a dugg MMA na nga xam que kaayam bi mën na la yëkkati ba si kaw dóor la si suuf jéeg sa kaw di continuer lu dul ba arbitre bi arrêté. mooy lan lan moo ko andi su ma laajee lu ko andi. gis ñu Sénégal loo xamante ni euh, maanaam bu dee am na aussi ñun lu ñu fekkee mosuñu gis autant de violence autant de haine. Hmm. langue politique bi. non du langue politique du ma ko teg rek su langue politique ah. ah no non non non moi je dis que c'est sénégalais maintenant et je le dis bu mu koy wax nit ñi duñ ma ko duñ ma gëm dama la wax sànq détachement pour man c'est le manque de confiance en soi ñun jël suñu. lu ñu mel lu ñu doon ñu jël lépp loolu lay nit ci doon ne nga jël yépp jël ko jox ko nit muy réfléchir à place di la wax loo war a def à place loolu dem ba nga xamante ne yow daal dangay ngay accompagner mouvement mais yow yaay kan xam nga ko lan moo la fi indi lan nga fi war a dawal xam nga ko lan nga xam rek mooy situation mais situation boo mun munti gis mais bu yombee à la limite da ngay gaaw a dee foog nga xeex foog nga jàng expérience donc ñun tey quand je vois nous avons beaucoup de jeunes quand on dit que pays bi la moyenne d'âge et de 19 ans maanaam boo amee 60 ans màgget nga à peu près 90 pour cent des Sénégalais léegi boo amee 60 ans voyagé wuloo yow sa koñ nga xam wala sa région voyagé wuloo jànguloo amoo éducation amoo dara mais lan nga mën a indil ndaw yi dëkk bu réew boo xamante ne ñu àgg niveau 16 ans nekk école ba tey 16 ans damay dox ci mbedd yi di dugg si biir région Sénégal yi di gis xale yi si mbedd heure heure jàng xale yi jànguñu. mais loolu moo koy waral Charles selon toi. Euh, euh, euh, si tu veux qu'un pays se développe y pas de souci va qui est son peuple est-ce que son peuple quatre 80 pour cent am na ñu bac demal kore ah demal Japon quatre-vingt-dix quatre-vingt-quinze pour cent niveau bac nga ñëw xaw est-ce que je ne sais pas si le chiffre exact mais ça s'approche de ces choses nga dem Corée demal Malaisie de tous ces pays ñëwal Sénégal ñu ne la ñaata xale ñoo àgg ba troisième ah ah, ah. Euh, société dañ koy xalaat te société parfois il faut des mesures impopulaires pour mu avancer Euh, tey je le dis souvent on est moins de 400 000 personnes yuy fay impôt direct maanaam mot réel motuñu 400 mille nit yoo xamante ne fin du mois ñu jox la sa bulletin de salaire nga xool sa salaire brut ñu ne le temps nga xool salaire net mu ute ak sa salaire brut nga xamante ne si diggante ñaari bii dem na IPRES bii dem na impôt bii dem na fii bii dem na fële bii dem na fële bii dem na fële motuñu 400 000. léegi nag motuñu quatre cent mille ñu doon dix huit millions lu si des yëpp fan la état fu muy jëlee xaalis mooy si pompe essence yi nga ñëw jënd sa essence wala sa gasoil nga fay foofu nga ñëw dugg si ay supermarché heureusement ñu ñëw parce que bu ñu ñëwuloon euh, du état du am xaalis boobu loolu mooy justifier lu bëri xaalis boobu budget buy yoxu parce que état dafay dem jël ko si poche su sénégalais yi de manière directe ou de manière indirecte nga fay sa téléphone nga am taxe yu ngay fay nga fay sa loyer nga am tax yu ngay fay nga fay sa euh, lu mu tudd sa électricité nga am tax yu ngay fay nga fay lu mu tudd sa ndox am tax yu ngay fay te ñan ñooy fay yooyu ñu si ëpp ñooy mooy ñoo xamante ne ñoom ñoo yor fami ñoom ñooy liggéey am fenn après nga am marché informel nga am marché informel économie informelle ñu ne le plus de quatre-vingt-dix pour cent de notre économie informelle boo buggee xam que suñu dëkk liggéey bi ñu ngi toog di wax ay waxu ñàkk fayda amul koñ amul immeuble boo gisul ci biir Dakar te gisoo ci biir ci suuf magasin dix-huit millions de personnes nga bëgg tout tali boo tuddee am magasin mais fan lañ jëm bu dee ñëpp dañuy jaay kan mooy jënd après cest à xalaatuñu réew nag dañ koy xalaat donc boo toogee tey ne à ah, qui la faute il est vrai que tey Sénégal dafa soxla koo xamante ne day ñëw ne Sénégalais yi c'est am na ay urgence dëgg la faw ñu ñu ay urgence wante nag gars yi nañu waxante dëgg faw ko ñu xoolaat tuuti fu ñu jëm lan lañ yor fu ñu jëm luñ koy luñ luñ fay demee kan moo ñu fay yóbbu ban xel moo ñu fay yóbbu ban doole moo ñu fay yóbbu béy bi naka lay xale yi di dellu si mbéy bi ban suuf lañ leen di jox est-ce que war nañ ne tey xale yëpp dañuy ñëw état jël xaalis bi ne bon très bien damay jël xaalis suuf si duma ko jaay kenn dama la koy dama la koy jox pour quatre-vingt-dix-neuf ans mais du la ko jaay pourquoi ñuy jaay suuf waruñu jaay suuf ñu ne xale yi ngeen dem foofu ñu jox leen suuf former leen jàngal leen béy jox leen tracteur jox leen lakk ngeen nekk ay propriétaire ñu commencé liggéey euh, les ICS yoo xamante ne ñëpp a ngi ko toog di ko produire du phosphate et importer des engrais est-ce que war nañ ko bàyyi indien yi rek ñoom ñu yor ko est-ce qu'il n'est pas grand temps que ñun sénégalais ñu xoolaat suñu mbir mais kooku day fekk ñu am beneen mentalité une confiance en soi cette envie de changer les choses. Euh, candidat yoo xamante ni kenn ku nekk ci ñoom xamuñu lan mooy sa programme. mais mais c'est normal c'est normal. ci Amadou Ba moom continuité la wax yeneen candidat yépp doo maanaam xamuñu lan mooy seen programme lan lañ bëggal Sénégal. mais la mais c'est normal maa ngi lay wax sànq que. Ousmane Sonko il occupe l'espace par la communication est-ce qu'on est en train de parler de des programmes non on parle de ça c'est quand même intelligent même intelligent en termes de communication les, les autres mais c'est à eux d'exister bu fekkente ne yow si nii mënoo exister nu ko foog naa la jox réew nga exister yow mënoo ma mënoo def ba yow ñu wax si yow waxte dëgg c'est à eux de créer de faire en sorte pour qu'on parle d'eux ils ont quoi tu vas pas tu as pas temps d'arriver à l'état pour découvrir xam nga vision ça commence maintenant hein. après l'état tu déclines avec ce que tu peux parce que la communauté internationale la dette internationale ak nga fa da ngay ñëw rek changer comme tu veux c'est pas vrai tey bu ñu ñëwee ci li nga xamante tam actualité la jamono ji ñu ngi koy waxtaanee Euh, un peu partout ci li nga xamante ni rek moom mooy euh, réseaux sociaux yi muy la décision euh, bi nga xamante ni le saba si fay décidé woon na ko pour usman Sonko ñu réintégrer ko li nga xamante ni moom mooy ci liste yi depuis lors DGE directeur général des élections nanguwul appliquer cette décision seen ay avocat Ousmane Sonko tantewaat dem Sénat Sénat mayaat leen dëgg mais DGE ba tey nee na Ousmane Sonko ne figure pas sur les listes pour mu mun koo jox li nga xamante ni moom mooy fiche de parrainage am coow li bari euh, euh, euh, naka nga jànge situation boobu parce que même bu fekkee c'est pas e mooy dugal Ousmane Sonko wala génnee ko mais tey ñëpp dañ ko joxoñ baaraamu tuuma parce que jàpp nañ ni moom waroon na appliquer décision justice en attendant parce que comme contumace bi nga xamante ni moom la ñu wax ne Ousmane Sonko moo ko teree bokk ci élection yi c'est pas encore définitif en attendant Cour suprême bi décider man euh, dégg naa depuis dëmb wala bërki dëmb coow bi coow bi nee na kur ku si nekk yaa ngi wax man je me suis posé deux questions avant lii yëpp am la première question que j'ai posée jàkkaarloo la dama ne woon est-ce que lu le recours pourvoi du pour pourvoi en cassation boo xamante ne agent judiciaire de l'État daf ko entamé est-ce que c'est suspensif maître Doudou Ndoye génn na am si mu lu mu si wax nee nu c'est pas suspensif ñeneen ñi ne c'est suspensif kooku première question deuxième question ma ne nax nga mën a nekk contumax mooy maanaam contumax mooy koo xamante ne dañu ko juger buñ koy juger gisuñu ko jàppuñu ko teguñu ko bët ñu juger ko daan ko nax la kooku bés bu ñu la nee ñàpp jàpp la duggal la si kaso boo xamante ne ci réew boobu kaso ba si réew boobu lañ la jugé nax nga mun a at toujours garder sa statut de contumace loolu dafa ma xaw a jaaxal kooku droit la. mais selon bu ñu sukkandikoo ci. Euh, Ismaïla Madior Fall jamono yu mu nekkee ministre daal woon détail. dama ne non man kooku du man man j'ai beaucoup de respect pour nit ñi mais moom du ma wax si waxam waaw dama ne réew. article 307 du code de procédure pénale dafa am lu mu wax maanaam ñu ñuy jugé par contumace mooy ñoo xamante ne ñëwuñu ne man maa ngi nii wala jàpp teguñu leen bët jàppuñu leen ñu jugé leen si kaw loolu daan leen si kaw loolu article ba ne wante bés bu leen wante bu ñu ñëwee bés bu ñu ñëwee si biir loo xamante ne moom mooy délai de prescription ba wone seen bopp wala ñu jàpp leen bu fekkente ne ñu daan bu ñu leen daanoon procès ba day day tëb léegi nag Sénégal gis naa fi ministre boo xamante ne cour suprême dafa wax benn affaire ministre bi nekk du ma ko def am na fi donc loolu tax ma ne c'est avec beaucoup de regret affaire wu Sénat bi man dama liir affaire u Sénat bi dama ko liir Sénat jël requérant maanaam Sénat jël koo xamante ne moom mooy maître Bamba Cissé toog teg lim lim lim lim après mu liim loo xamante ne agent judiciaire de l'État lu mu wax maanaam euh, euh, dañu def euh, lu mu tudd pour pourvoi en cassation et que donc lu demee noonu moom tam mu liim loolu après mu ñëw si benn dispositif boo xamante ne mu am lu mu wax après mu ne bu fekkente ne si ay disposition yoo xamante ne légal te amul loo xamante ne teg na si kaw lii si kaw lii si kaw lii ah, à intervenir décision de justice j'invite laa la Sénat invite léegi nag nit ñi ne invitation boobu ordre la ko ñu ne dañu ordonné ñii pour ñu def lu ñuy def Sénat balaa muy invité dafa dafa dafa am lu mu wax fekkente ne dafa am lu mu wax dafa am pour man dafa am importance Sénat dafa ne si fin bi ah Ainsi, sur la base des contestations de fait et de droit, la Sénat estime qu'en l'état de la procédure, sauf disposition légale contraire et sans préjudice d'une décision de justice à intervenir. Sénat loolu Monsieur Ousmane Sonko doit jouir du dëgg de son statut d'électeur inscrit sur les listes électorales avec tous les droits y attachés. En conséquence, la Sénat invite la Direction générale des élections à prendre en relation avec tout son service. Invite. Est-ce que la Sénat peut-elle donner une injonction à la DGE Une question fondamentale. Une substitution, elle peut se substituer dans le cadre de loo xamante ne mooy ay prérogative am loolu la ko yoon may bu mu koy di ko ne article article article article lii nga mën a def lii nga mënul def lii nga mën a def lii nga mën a def lii nga mën a def substitution dans le cadre des opérations électorales on est d'accord ñu ne dafay mu wax DGE mais da nga wax sànq lu am solo inscription bi est-ce que c'est la DAF ou la DGE la DGE assure la tenue assure la tenue tenue dafa mel na arbitre dafay arbitrer ay match mais arbitre bi il n'assure pas la tenue du match la tenue du match est assurée par les commissaires du match dañu nekk fii si loo xamante ne ku si nekk yaa ngi wax man du donc ku si nekk loolu moo loolu moo moo jaa moo ma jaaxal si Sénégal mooy que c'est vrai que suñu droit ñu ngi ko bind si tubaab du suñu kàllaama ku si nekk nag ñii dañuy wax nii ñii wax nii ñu ngi fi doon wax président mun na def troisième mandat ñu ne la mënul def troisième mandat pourtant ñoom ñëpp ñooy jàngale université nee naa la fu ñu toll ku si nekk foo toll da ngay waxee te man lu ma gis nii juge conseil constitutionnel moom na kii les avocats am ñu benn këyit boo xamante ne Sénat am na ko ñoom lu ñuy def këyit bi Sénat bi yor nii avocats yi lan la yore nañ këyit fan la ñu mun a dem. mais est-ce que tey du ministre de l'intérieur bi nga xamante ni moo ko seppi woon moom moo war a mën a taxaw. sa sa question dafa am solo ministre de l'intérieur moo tas Pastef DGE fan la bokk. ministre de l'intérieur mooy patron. yow nga bëgg a ministère de l'intérieur tas Pastef ne ñii duñu bokk yow DGE nga ñëw nga ñëw de ministre bi. <laughs> lu nga wax ba di laa ko gisee cest à dafa am loo xamante ne DGE DGE nekk benn benn démembrement d'un corps de benn corps du pouvoir exécutif bokkul nekkul di législatif nekkul judiciaire légi patron ne ko kii du bokk tas naa leen c'est-à-dire am tax ay problème de cohérence quoi ñii di ñii di dal ci kaw Thiendella Fall. léegi léegi. aw amuñu droit dal ci moom. non wax mun nga wax mais man da ngay maandu man ñaari question la posé benn bi est-ce que la décision du président décision président bu mu jël fële tribunal du tribunal première instance fële de Ziguinchor est-ce que le pourvoi en cassation pourvoi en cassation de l'agent judiciaire c'est suspensif ou pas maanaam bu dee suspensif mooy que. il faut ñu xaar cour suprême am lu mu wax est-ce que loolu la si c'est pas suspensif amul temps ñu xaar beneen affaire bi mooy si kaw lan la ñu ne Ousmane Sonko doo bokk présidentiel. si c'est la question que tout le monde se pose. si kaw lan lañ ko teg ñu ne la contum ñu ne la waa affaire il est contumax et que ma ne la ban réew man daal man bëgg laa ñu wax ma ko réew boo xamante ne yow bii dañ laa jàpp. dan laa jëkk a jugé bu lay jugé kenn gisu la kenn tegu la nga danga kenn tegu kooku mooy contumace ñu jugé la ñu ne la tant fii ak délai de prescription boo ñëwee ne gars yi maa ngi nii de waaw maa ngi nii nanguwuma daan buñ ma daanaloon ñu ne jugement boobu wala ñu jàppale waxu na la ñu jàppale si lii wala ñu jàppale lan la wax waxu na ñu jàppale si déedéet ñu jàppale donc question yooyu pour man am na solo lool mais dañuy toog di tourner léegi nag y a la CEDEAO le 6 y a mais lu may jàpp mooy que ñun sénégalais mérité ñu mu suñu démocratie mérité wul lii suñu justice itam mérité wul lii euh, lu ñuy wax ci suñuy administration du hauts fonctionnaire c'est grave parce que nag réew secteur privé la secteur public moteur économie secteur privé moo ko yor secteur privé tegal la si kaw bu fekkante ne léegi man j'aurais du mal à croire que nous avons une administration bu dem ni aux ordres parce que dina ma loolu bu nekkee dëgg dina ma metti loolu te mais j'ai du mal à y honnêtement quoi parce que am na ay kilifa am na ñoo la preuve le juge Ziguinchor il a dit non <laughs> pourtant on a dit tout amul lu ñu yekkulul justice fii Sénégal juge Ziguinchor ne non ñu yekkal ko wuy jabaram xaw ma frère ak yu demee noonu mais de la de la même manière aussi que waa Sonko am na lu ñu yekk donc il faut qu'on arrête quoi. oui la parce que defoon na fi li nga xamante ni moom mooy désobé désobéissance euh, civile ne d'accordul ci justice bu euh, Sénégal waaye tey est-ce que taxawaay bi nga xamante ni euh, la xaar ci ministre de l'intérieur tey est-ce que yaakaar nga ni. dina ko dina ko am ci situation bu Ousmane Sonko parce que ñu bëri depuis bañ ko falee ñu ngi euh, wax ci élection yi ba xam dina jaar yoon ba dalaloon na xel yi mais situation bii la ñëpp xaa pour moom mu am ci benn taxawaay est que yaakaar taxawaay la mën a am. moom dissoudre na le Pastef. Mhm. mais Antoine Diome décision la. non c'est le ministère. non non non ministère ministre. continuité la amoon moins euh, ni compte état continuité ministère de l'intérieur ñoo jël décision dis dissoudre ñu dem au kalañu woo Sidiki Kaba ñëw mu ñëw lan lay def. continuité. continuité man xam nga euh, situation bu may gis ni du lu ma neex du lu ñu kii et qui me fait même peur pour l'avenir parce que je me pose beaucoup de questions maintenant même sur. Euh, sur les élections. Je, pose beaucoup de questions parce que euh, je sais pas, je ne sais plus. C'est-à-dire que Yoyakor, la situation est tendue. Encore que les Sénégalais nous sortent. Les gens parlent même de reporter les élections parce que Boubacar Kamara, le leader du parti PCC, PCS du moins, moom mu ngi doon wax waxi report ndaxte nee na situation bi bu Sénégal jamono ji euh, yaakaaru ne Euh, mun nañ ci amal ay élection yoo xamante ni euh, euh, day jaari yoon. ñoom mun nañ ko gisee noonu effectivement ku nekk aussi. na nga ni nga analyser situation bi yow ban ban ban la nga gis. man ba ma gisee si dialogue national am na benn point boo xamante ne je l'avais soulevé le premier juin quand yaa y a problème des problèmes c'était à TFM on avait fait dix heures à dix-sept émission. benn benn point boo xamante ne où le président de la république mu ngi doon laaj ñu xalaat ñu xalaataat ci élection yi di ñëw te xalaat googu mooy sur la tenue des élections donc le projet même de différer les élections est antérieur au dialogue parce que dégg naa am naa ci dégg dëgg ci ay ñoo xamante ne ñu ngi ko doon wax bokk ci pouvoir pour ñu reporter ko ñu reporter ko mais ce serait un échec lamentable pour le président Macky Sall. Parce que l'histoire retiendra que sous son magistère, <laughs> ça a été compliqué. N'est-ce pas Donc, président lu mu mun a def tey mooy jox assurance aux Sénégalais que dinañ voter ci jàmm salaam toute transparence toute liberté et de manière apaisée est-ce que Sonko dina bokk mu du bokk est-ce que Sonko day ne bu dul man du doon kenn loolu mënul ne. mais nag président amoon tam lu mu waxoon ci discours bi parce que ne woon na euh, bépp décision justice dina ci gar bakkanam ba dinañ ko appliquer à la lettre mais bii dañoo gis. looloo tax ma ne est-ce que la décision est-ce que le pourvoi est suspensif le juge là il a pris une décision si le pourvoi n'est pas suspensif. maintenant bu ñu demee ba cour suprême cour suprême jox raison juge bi lu ñuy def. mais est-ce que loolu waru woon tax tam ñu jox Ousmane Sonko ay fiches mu dem en attendant comme c'est pas définitif. ça veut loolu tax ma ne sànq dañu dañu toog boo ko joxee fiche yi tam bo DGE bu joxee fiche bi gain politique Pastef xam nga lan la mais ku ko tas moo ko jox fiche. <laughs> ku ko tas ministère DGE bokk si ministère bu tas ko ba pare jox ko fiche mooy xam je te reconnais yow lu mu la mun dee tas dàq la ba am loo xamante ne coow si réew bën sa bëtawaat di di est-ce que est-ce que dañuy xalaat bu baax a baax a baax avant ñuy def yenn yi. a beaucoup d'émotions dans ce qu'on fait et après on se retrouve dans des situations <laughs> compliquées tu mets quelqu'un en prison un contumax il est en prison dans son pays qu'il a jugé il est je sais pas moi nañ ma expliquer affaire yooyu quoi ma comprendre parce que. man je suis comme man parce que ñoom nga xamante ni teg nañ ko moom mooy. Euh, man jàppeewuñ ko ci ci les mêmes faits man jàpp ma argument man teg man ay argument man dama jàpp yoon lu mu wax man daal xam nga lan la xaw ma dara ci droit dama bëgg a jàngal droit damay nii rek yow nga def lii def lii def lii loolu rek laa bëgg a ñu ñu xamal ma ko quoi mais ça veut dire léegi nag bu fekkente ni ñun sénégalais man bii 60 ans am affaire bi mënul leer sama bopp parce que kenn mënu ma wax dëgg ga mais xale yi masata xale yi mais loolu moo indi dëkk bi lu réew bi lu mu mel nii ñu koy jéem a gérer autrement alors que xel ak dëgg rek war na ko mën a gérer wax dëgg ak xel rek war na ko mën a gérer. mais est-ce que tamit euh, les normes juridiques et les décisions des institutions des régulations des élections suñu ko respecté wul est-ce que euh, tey mënul mettre en risque la régularité et la transparence euh, fu ñu toll nii si Sénégal bu ñu toll nii na mënatoo fi def dara te du leer mu nekk kooku mënul ne fini ça eh, il y une décision de justice Cour suprême concernant le procès Mame Mbaye Niang ak ousman Sonko lan la la ñuy décider foofu bu ñu décider que dañuy bu ñu confirmer verdict ba mooy Sonko lu tombe sur le coup du bokk du dëgg donc ñu ngi toog di wax si wax bii bii bii bi bi boobu ñëwagul ça veut dire que man damay xool Sénégal man Sénégal <laughs> vraiment ça veut bu benn bakkan rot bu kenn léegi nag nan dem yàlla rek a xam kan mooy yàlla rek a xama si Dieu a écrit que tu seras président tu seras président amul ñaan amul dara yàlla bu ko bindee kenn mënu si tous laa la wax yàlla bu ne bu doo doon président kenn mënu si tous. ci kawam yaakaar nga ni dina doon candidat. kan Sonko. man ba may nee Sonko na xalaat plan A plan B plan C plan D yàgg na waaw oh, je l'ai dit je te l'ai dit à toi d'ailleurs na xalaat plan A plan B parce que mun na am mu bañ a bokk mais par contre ils peuvent être faiseurs de roi te Idrissa Seck dafa am benn wax bu mu wax bu am solo Idrissa Seck dafa ne lu dafa am temps justice justice bu paree def lu muy def politique mun na ko ñëw teggi changer teg fële politique bu mooy lan mooy tey boo imaginer woon ñu Guy Marius Sagna président de la République du Sénégal. mais on en parle de. parce que. faut c'est possible il faut pas écarter cette possibilité là man quand je disais aux gens B plan C loolu yëpp. Guy Marius Sagna. sur quelle base maintenant on va il faut il faut il faut est-ce que c'est un candidat. indépendant alors que est-ce que c'est un membre de il faut prouver toutes ces amoon na kat bon bref mais supposons muy moom wala muy keneen koo xamante ne le président a décidé Sonko a décidé liggéey ba kooku ñu fal ko président mais kooku lu muy njëkk def septembre day tas assemblée nationale bu tasee assemblée nationale ah ñu amaat beneen assemblée nationale mun na benn première chose première chose décision boo xamante ne mun na ko jël tas assemblée dem vers amnistie dem vers tout ce que l'on veut indi at Sonko patati patata ay diir loolu yëpp àdduna la politique la du dëgg tas assemblée ñoo ñëwaat ñu def la président de l'assemblée nationale premier ministre tout ce que l'on veut demaat élection loolu yëpp c'est possible mais est-ce que damay ne lii la bii lay doon wala du doon bii bii la wala dëkk bi màbb wala bii la wala l'opposition Idrissa Seck moom depuis lors mu ngi dégg yeneen candidats mais ba tey moom dégguñu ko gis nañ Khalifa Sall mi ngi def ay tournée ci suuf petit parrainage euh, euh, Abdourahmane Diouf les autres candidats mais moom Idi ba tey kenn déggu ko même sax euh, ki nga xam mi ngi dégg sax ñibbisi Karim Wade mais Idi moom mi nga xam ne nee mooy chef de l'opposition moom ba tey kenn xamul ci lu mu nekk. il faut s'en parce que kenn déggu ko deful dara. il faut s'en méfier Idrissa Seck faut s'en méfier am na jëmm xam na Sénégal am na itte am fu mu jaar am lu si jàng boo demee si Karim wat am na appareil muy PDS boo ñëwee si Malick Gakou bañkat la parce que on n'en parle pas beaucoup mais bañkat la am na lu mu bañ de démissionné AFP démissionné ministre démissionné démission bañkat la am na lu muy boo jëlee waa ku mel gi voilà donc il faut fair attention parce que sénégalais yi gis nga tey sénégalais yi ñun ñëpp on a dafa am loo xamante ne rafetul si ñun moo ñu dal yàlla dafa def ay extrême danu vivre ay moments joyeux intense victoire des lions booy tegle ay victoire mais boo xoolee victoire yooyu yëpp luñ si taxawee jëfandikoo nii c'est parce que dafa am fu ñu ruus léegi nag dañu tiit aussi xam que ñu yor suñuy doom ñuy jël ay gaal di dem amuñu réponse on n'a pas de réponse à ça loolu yëpp. ci affaire gaal yooyu sax nag gis nañu Papito Kara bu mafia kàcc kàcc euh, euh, da doon rejoindre euh, Espagne jaaree fa ñàkk bakkanam booy amuñu rêve ay cauchemar lañu am xam nga suñuy doom yi xam nga lu ñuy def suñuy dañuy topp suñuy matière première suñuy doom yi dañuy dem suñuy matière première fu muy jóge di dem si dëkk yooyu si dëkk yooyu la ñuy dem euh, nga nekk su dëkk tubaab suma benn xarit moom a koy wax maa ngi koy ñëw nee na ma si suuf amu fa dara ñoom si kaw lañ am sur ils sont riches sous terre ils sont pauvres nga ñëw suñu réew sous terre on est riche sur terre on est pauvre kon lan la c'est la chinois yi lu ñu def japonais yi lu ñu def copier ba tey ñu créé Huawei mais dañu copier ak mënoonu copier da ngay jënd ba boo loo jënd ñu ne la chinois baaxul bul jënd tey boo jëndul chinois doo dem dañu copier malaisiens yi coréens yi ñu lan la ñuy def am nga xaalis tabax immeuble takk ay jabar yor say oto foog na ko dund loolu la bu ñu waxee ñu ne ñu ay jullit la ñu wala ñun nous sommes des catholiques ah nous sommes dara dañu développé suñu réew liggéey suñu doom yi xool créer situation boo xamante ne si tu as deux enfants trois enfants quatre enfants cinq enfants dix enfants tu commences à avoir à poser de vrais problèmes et personne ne veut parle de ces parce qu'on est que parce qu'on n'est pas juste c'est tout. nga xamante ne ñoom ñoo féetoog euh, parti au pouvoir naan dañuy gagné élection yi dès le premier tour. Ah. candidat Amadou Ba. xëy na xëy na euh, Amadou Ba faut se méfier xam nga am na ñoo xamante ne kenn ko kenn duñ ko foog si ñoom quoi yàlla rek yàlla rek a kéemaan yàlla rek a xam. yàlla rek ay buur quoi. Sall kontaan nañu wante gagné dès le premier tour. <laughs> day tàggoo sax nag. mais lu ma leen di ñaan rek mooy que nañ gën a éprouver nit ñi euh, émotion bi dañ ko gën a teg ci suuf xel yi gën a ñu gën a mën a kii gën a éprouver nit ñi borom xam-xam yi fu ñu dem ñu dem gisi leen laaj leen ay laaj yoo xamante ne ñu mun a bokk il faut que les intellectuels ñu ñëwaat au fond kii ba pare ñu am peut-être message c'est pour les petits les enfants nos enfants Euh, à qui on donne des cauchemars, parce que eux, ils devaient avoir des rêves et non pas des cauchemars. c'est pour moi, c'est une faillite. C'est notre faute à nous. C'est nous qui avons failli et nos enfants pleurent et meurent en mer. C'est notre faute à nous. Nos enfants, ils sont courageux. Ils ont décidé de mourir. C'est un échec pour nous.